benn waxtu daal di tegal juróom-ñetti simili ci première chaîne de télé privée Sénégal yi jéggalu uh, bu baax ci uh, tàmbali gi ñeel uh, xibaar yi ñu door ko nag ak li nga xamante ne moom moo jëm ci discours bi nga xam ne 31 décembre bu jot moom jiitu réew Macky Sall daf koy def jagleel ko askanu Sénégal ni ki démb ci bi 20h jotee noonee la ko amale dellusiwaat na nag moom jiitu réew mi ci ay poñ yu bëri bokk ci yooyu mbir ya nga xam ne moom moo di réalisation yu mu jot amal ci réew mi waaye itam fa nga xam xam bëgg na fa yóbbu réewum Sénégal loolu yëpp dañu ci ànd ak euh, si mu dikkaat ci ak ñu na fukki simili ak juróom-ñaar lu ni mel moom mooy temps bi discours à la nation bu njiital réew mi Macky Sall daal di amal ni ki démb ci bésub 31 bi ci waxtu woowee nag njiital réew mi dellusiwaat na ci réalisation yi bu jot amal ci atum 2019 ñu mën cee lim installation bu comité de pilotage ñeel wàllum dialogue national waa itam wàññeeku defisit budgétaire bi te bu ñu fàttee itam loi bi nga xam ne dafay criminaliser viol ak pédophilie ci atum 2020 bëgg-bëgg njiital réew mi moom mooy wëyal li mu tàmbali ñu mën cee jàpp nag li nga xam ne moom mooy dekkilaat chemin de fer bi nga xam ne moom mooy dox Dakar ba ba Bamako bokk itam ci fanweeru chantier yi nga xam ne njiital réew mi ak gouvernement am jël nañ ko ñeel wàllum transport ci réew mi yëpp lu ñeel wàllum autosuffisance alimentaire itam bokk na ci projet bi nga xam ne soxoon na njiital réew mi bu baax lu ni mel nag moom moo waral sax ñu bëgg dekkilaat secteur yu ci mel ni élevage pêche waaye itam agriculture ñu wax ci wàllum électricité mi nga xam ne jamono ji moom moo lumbee réew mi njiital mi ñëwaat na ci doon na jéem a indi ay leeral ñeel wàllum yokkuteb courant bi ba noppi indi ci ay solution ci at yi ñu jëm ñu wax ci wàllum njàng meek njàngale mi mi nga xam ne jamono ji ñu ngi ciy waajal lu toll ci fukk ak ñetti centre jëm ci wàllum investissement ñeel wàllum formation bi Sénégal zéro déchet ak bés yu ñu jagleel wàllum set doon na loo xam ne dinañ ko tàmbali ñeenti fan ci weerub janvier ba noppi nar cee joxe li nga xam ne moom mooy grand prix du chef de l'État ñeel wàllum set waaye it ab brigade de lutte boo xam ne li ko tax a jóg moom mooy xeex lu ñeel wàllum occupation anarchique ak lu ñeel wàllum salte te ay daan ndax cee mujj ñu jàpp ni nag message à la nation bi bëri na ay digge yoo xam ne njiital réew mi servir na ko sénégalais yi ak ab phrase bu ñuy faral di dégg bu baax ci discours bi moom mooy waajal ëllëg mi ngook ñu desandi ci discours boobe ak xalaat bi nga xam ne kii jiite assemblée nationale daal na ko ci jibal moom nag nee na ànd na bu baax a baax ak njiitoo Macky Sall kàddu yi mu yëkkati ba noppi rafetlu ko Moustapha Niass nag daal nay euh, wax ni nag xel mu dal képp euh, la mën a am ci bépp projet bu nga xam ne njiitoo Macky Sall lim na ko euh, ngir jébbal ko askanub Sénégal laata muy sàkku itam ngir ñu jiital waxtaan ak déggoo ci njëgum courant bi nga xam ne nag jur na coow assemblée nationale daal dinay àddu itam ci euh, réewum Sénégal ak nañu war a duggee ci euh, koppar gu bees gi di ECO Lassana Cissé ak Baye Dimboub ñoo dégloon ndoog moom lu jëm ci discours bi kàddu yi njiitu réew mi yëkkati ko ci jamono joo xamante ni askan wi ñu ngi ko doon xaar ci anam yu bari mu nekk nag mbir yoo xamante ni daanaka ñëwaat na ci njiital assemblée nationale nga xamante ni seetaan na ko jàpp ni discours bi discours bu am solo la ndax kat fësal na yi tey sénégalais yi ci misaal yokkute njëgu courant bi nga xamante ni njiitu réew mi daan na ciy ñëwaat bu ñu sukkandikoo nag ci Moustapha Niass faaw kilifay waxtaan ak askan wi bu ko defee coow li mën a dàkk. gaaw arrêté te itam pour coow li arrêté ñu expliquer doomu aadama yi li xew lu tax mu xew naka la xewee su ko defee du muñ dugg ñu mën a comprendre ñaari côté yi la du ñuy coow rek la ñuy wax ñu bàyyi coow de li tax ñuy coow nañ leen ko expliquer ba coow dootu am. beneen mbir boo xamante ni njiitu réew mi àdduna ci mooy ECHO ki nga xamante ni nag mooy président Moustapha Niass jàpp ni koppar bu bees boobee ñu fas yéene taxawal. lu ñu xalaat la. ñu nag ñoo d'accord pour defar seen monnaie bu bees dofuñu dina jàpp leen te ay chef d'état lañu am nañu xam-xam am nañu mën-mën xereñ nañu ñu woo nag ay experts africains ak yeneen experts ñu waxtaan benn école ba nag nañu wóolu yaakaar mu wóor ñu ne loolu bu neexee yàlla buñ ko jaaralee ci yoon mone boobu dana dana dox encore mieux. que monnaie bi fi nekkoon. njiital assemblée nationale kontaan loolu ci kàddu yi nga xamante ni njiitu réew mi na ko yëkkati moom Moustapha Niass ne am na yaakaar ci ëllëg gu rafet gi nga xamante ni président Macky Sall ñëwaat na ci lu bari yoon ci discours am loolu it sax la xalaat ci programme zéro déchet. c'est possible parce que Dieu a créé le monde propre. mi ngoog Lassana Cissé keneen ku bëgg lool ci discours njiitu réew mi Macky Sall mooy Serigne Mbaye Thiam moom jëriñ ji ñu denk wàllub ndox ak assainissement moom itam seetaan na discours gi kaddu yam ci yëkkati nag mooy ànd na ak li nga xam ne moom moo di njiitu réew mi euh, la mu jibal leneen lu mu waxtaane itam mooy lu jëm ci yokkute am déet ci njëgum ndox bi Serigne Mbaye Thiam nee na nag fi mu toll ni loolee euh, antoogul ngir ñu mën caa àddu leneen itam li nga xamante ne yëkkati na ci kàddu mooy nag Sénégal ak na nga xam ne noonu lay waajale duggam ca atum 2020 gi eh, ci koppar gu bees gi di ECHO Serigne Mbaye Thiam dalal xel yi wax ni nag eh, lépp luy eh, mesure rek ñoom dinañu ko jël laata kon ñuy dugg ci boobu lépp mbir moom nag àndoon ak moom ci seetaan discours gi mooy Babacar Tambe du Jibi jàll ci caméra bi. ci tekk ak tey moom la yi ñu dénk wàllum ndox mi waaye itam wàllu mécanisme rek. daal di seetaane li nga xam ne mu di discours à la nation bi njiitu réew bi di Macky Sall wàllum ndox mi nag nekk ab pàcc bu nga xam ne njiitu réew bi daal dina ci àddu ak seen o bi nga xamante ni nii depuis min bi rek moom moo yor lépp jëm ci wàllum gestion gannaaw mu nekk secteur am sëñ Mbaye Thiam di dëggal njiitu réew di Macky Sall waaye itam di indi ay leeral. doon tiit mais ndox mi kenn du ko yokk ci suba seen o suy démarrer mais li nga xam nag moom laa mën a wax mooy que ne. contrat bi ñu xaatim diggante Sénégal ak seen o te Suez nekk seen partenaire fukki at la ak juróom suñu maandoo mënuñoo wax ne fukki at ak juróom yi wàññi du ci am wala yokk du ci am parce que fukki at ak juróom lu nekk xaj na ci mais li ñu mën a wax daal ci di njëlbeen gi yokk amul léegi nag suñ demee ba ci kanam conditions économique yi ni ñuy amee ndox mën naa indi wàññeeku comme mën naa indi yokk waaye loolu du léegi léegi léegi nii. lu ñeel wàllum éco itam mu nga xam ne ni nag ñu ci bari daal nañ ciy àddu nekk na ab ponk bu nga xam ne njiitu réew bi daal nañ ciy yëkkati ay kàddu Serigne Mbaye Thiam di xam ne rek amoon leen lu ñuy tiit ci boobule koppar daal di xam ne rek lu ñeel wàllum koom-koomu réew mi mu ngi ci ab situation bu baax. gis nañ ne senegal ci mbirum ponk yi ñu tëral. ne ñi seen économie ñi ngi koy saytu bu baax ñu koy wax critère de convergence Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne ñoo ëpp li ñuy méngale seen doxaluñu réew ak loolu ñu ànd tënk ko ak yeneen réew UMOA donc Sénégal pays la boo xam ne bii pare na ci loolu suñu économie dëgëraayam suñu déficit budgétaire suñu inflation ak ni ñuy gérer budget may nañu ñu dugg ci te duñ ci am benn tiitaange. bu loolu weesoo jawrin gi nga xam ne moom la ñu dénk wàllum dox waaye itam wàllu assainissement da dina yëkkati ay kàddu itam lu ñeel wàllum programme Sénégal zéro déchet bi nga xam ne njiitu réew bi daal na ci àddu Serigne bay Thiam di xam ne rek ñu gën a wax ak askan wi waaye itam ñu gën leen a sensibiliser loolee dana tax ba mbëbët yi daal di antu. Babacar Tambédou kile moom la mu jàpp ci discours bi mooy rek ni njiitu réew Macky Sall ay dige la defati te amul euh, benn mbir bu nga xam ne nag soppiku na ci ci la mu jotoon a dégg ci weesu ak euh, ni nga xam ne noonu la ko déggee ni ki démb bu dige yooyee yëpp njiitu mi di def amul lenn lu nga xam ne ndax na ko euh, jëmmal di kàddu Déthié Fall mi bokk ci parti bii di réew mi ñu teewlooy kàddoom ak kàr jatañoŋ si. discours bi nga xam ni li ci ëpp ay wax yéene te yàgg na ni wan yéeneem. pour Sénégal mais bi ñu ko faleeg léegi am na juróom-ñaari at li wér ngeen xam ko ma xam ko mooy li mu jot a jëf ak li nga xam ni mooy yéene yi mu jot a wax am na écart yu rëy a rëy benn bi ma ci njëkk benn bi ma ciy njëkk jukki mooy bi nga xam ni mooy électricité bi tey moo def actualité boo Sénégal yëpp ci yooyu lañuy wax te boo ko renvoyé ci déclaration bi mu defoon le 31 décembre 2016 dafa ni woon bu ñu yegsee 2017 dina wàññi électricité bi de 10 pour Sénégal yëpp tàccu ñu dawal ñaari at mu ñëw taxaw léegi damay yokk électricité bi de 6 pour cent dugal nuance léegi ci discours am ni tranche yi nga xam ne tranche sociale la augmentation boobu garantir na que du impacté ci ñoom alors que ci bare ñoo nekk ci tranche sociale boobu ñu ngeen gis ñu wane seen ay facture génn ci mbedd mi di manifester ci tranche boobu la ñu nekk donc déjà y a problème entre moom li muy wax ak li ñuy fekk ci facture bi mais dafa waxoon ci jamono jooju que Senelec tolloon na benn capacité de production bi nga xam ni dina ko permettre déjà coupure dootul am dugal na mix énergie demoon nañ ba ay 30 pour cent avec énergie renouvelable ba nga xam ni dina wàññi prix ba mu war a mën projeté wu sax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 l'option fondamentale bien sûr bien sûr te ça la constitution maa ko bind maa ko proposé maa ko woteelu donc foofu lañ toll mais malgré clause yooyu yëpp quand même le débat persiste loolu mooy li ma si jaaxal kon nañu réglé gum suñu wàllu deuxième mandat comme deuxième mandat la ñu wax ah leer na leer na léegi leer na boobu voilà kon alhamdulilah bés bu ne tribunal mu ngi àtte waaye saa yu politicien ñu laal ko ñu ne ah non magistrats ils sont sous l' influence de de l' exécutif non président dafa bëgg a éliminer ay adversaires am man teguma sama bopp fi ma nekk tey dinaaw kattanu suñu borom askan wi moo ma fi teg ci kaw kóolute ci kaw élection yoo xam ne ba ma fi yegg si du man maa yoroon réew mi donc ki yoroon réew mi laa jàmmal la gagné ko donc démocrate la gëm naa ne bu fekkee tey sama liggéey doyul sénégalais bu ñu demee élection duñ ma fal aussi simple que sax ñaareel bi gëm naa ni Sénégal suñu système électoral du système boo xam ne mën nañ ko jalgati nekkoon naa ministre de l'intérieur opposition bi da doon wax woy waru ko nekk parce que dafa far muy dem mi nga ko ñu wax ci euh, nouvel an gékat bu bees bi ni nga xam ne noonu la ko askan waaye yeewoo ca euh, Kolda Dunde ñoom nag mbégte la ñu ca àndal waaye nag euh, daal di nañuy jaare ci mbir ma ngir nag sàkku ci ñi di autorité yi ñu gestu leen ndax jàpp nañu ni seen diwaan googee lëndëm kurus la def loolee mën a jur yenn ci lorange rawatina lu ci mel ni lu jëm ci agression ak leneen ci yeneen i mbir yi nga xamante ne itam àddu nañu ci ñoom askan waaye yeewoo ca Kolda mooy rek ñu gestu leen ci lu jëm ci wàllu paj mi ndax Kolda amul cardiologue yeneen i spécialiste itam daal dinay euh, ci boobu lépp euh, diwaan ñu ànd ci ak Bokar Kande atum 2020 ñu daldi ko dalal ku ne ak ni nga doon wone sa mbégte yi esplanade gouvernance bu Kolda daldi di fees dell teranga waaw Kolda jëm ci kanam ci si parce que ñun Kolda la ñu ama ah. góor ak jigéen mag ak ndaw am ñoo xam ne dañu accompagner seeni njaboot pour ñenn ñi occasion la ngir jëlee ci souvenir ndax gisaat 19 ci calendrier yàlla rek xam ñan ñoo koy fekkee. atum jàmm ak naataange fu ne moom la ñaan. askanu Koldaay gis ne nguur gi war naa gën a góor góorgóorlu. santé la mooy problème spécialiste ci ay médecin kenn du ko wax suñu leader politique yi kenn doo ko dégg mu wax ko amuñu cardiologue da ngay gis ku jóge benn village ñëw Kolda pour faju ñu ñëw hôpital régional fu mu yaakaar ñu ne ko demal ëpp Ziguinchor et il ne doit pas retourner au Sénégal wax dëgg fa yàlla euh, am nañu réew yu bëri yoo xam ne ñu ngi bëgg a roy ci ñun ñuy ñaan yàlla ñaa mag ñi fi nekk Euh, euh, diine gi ak cosaan gi ñëpp ñu gën a jàppoo yokk ñaan jàmm nekk ci réew mi lu fi lu fi juddoo ñu mën ko njëriñoo ci réew mi te suñu njiit yi ñu jéem a def effort ñu jàppale seen population. atum ñu daal di ko dalal ci mbégte ak ci obscurité maanaam ci lëndamaaya 2019 daal di ñu féetee ginnaaw métti woon na trop ci ñenn ñi ku ne di ñaan at mu bees mi gën yu weesu. amin rek la wuti jëkkër di wax. yow looy wax ni nga ne amin amin amin. ñu gërëm ko moom Bokar euh, Kandé daal di yegg si nag ci beneen mbir wax ci mbirum éco gi ak coow la mu jur te duggaguñ ca ñi nga xam ne ñoom ñu bokk ci urgence panafricaniste nag nee ñu bu fekkee koppar gu bees googee réewum France mooy wéy di ko garantir ñoom bëgguñu ko benn yoon boobu lépp ONG nga xam ne nag Kémi Seba moo ko daal di jiite daal di nañuy wax itam ne li ñu bëgg jamono ji mooy armée française daal di génn ci bépp réew bu nga xam ne moo fare ci diwaanu Afrique ñu teewlu Omar euh, Wade ci micro Aïssatou Diop Tall. xam nga Kemi Seba mooy suñu président ONG dafa dul dafa dul yoon nit koo xam ne africain la africain dëkk Afrique dëkk Sénégal ñu daax ka fi mu dem Togo ñu daax ka mu dem Burkina ñu tëj ko ñaari ñaari euh, ñaari weeru kaso yoo xam ne di ko tëdd ak amaan ka 200000 loolu du yoon. tey jii urgence panafricaniste Sénégal Macky Sall lay joxe baaraamu tuuma nee na Macky Sall yow la tey jii la gën a mën a dugg pour continuer combat bi. tey jii la gën a pare urgence panafricaniste internationale ou Sénégal tey la gën a pare pour dëggal boppam continuer xeex bi Kémi Séba tey la gën a am fit bu mu amoon pour gën a continuer su ñu nee tey base militaire yi nañ jógee nañ jógee si Afrique waxuñu sax Sénégal kese nañ jógee Afrique parce que dañ gis leen na opération ba xam 6 ans la durée ñoom ñoo ngi Mali 6 ans koo xam ne nee na moom da jéem a protéger 6 ans mënul xam nañ ne li ngeen di def yéenay alimenter terrorisme yi foofu parce seen i intérêt moo fa nekk école bi sax mën nañ ko tuddee Samba wala Demba ñun loolu yëpp amul solo tur bi amul solo ñun xam nga la ñu am mécanisme bi processus bi tey dañuy ñëw li ko waa gars yi waxee maquillage Sall du maquillage gars yi ko usage panafricaine noonu la ko tuddee maquillage Sall kon Macky Sall donc ñun suñu ñëwee tey ji ci France ñu ngi ko yóbbu xam ne neexuñu xam la moo tax neexuñu processus dafa am yoon bu mu waroon jaar ban yoon la waroon jaar ñu ne dafa am France di génne loxam su génne loxam ba mu set bàyyi africains yi ñun suñu biir ñu décider suñu suñu bëgg par pour nous et par nous même processus bi bu ñu ko saboté bu ñu ko saboté bëgguñu ni ñu koy saboté et que mu doon et que Samba ou Demba tant que France mu ngi siy dugal bëgguñu. mi nga ko ñu daal jàddu ci leneen ci wàllub xibaar wax nag ca coow la nga xam ne moo amoon ca diwaanu Mbour ak quai de pêche ba nga xam ne ñenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di nappkat yi nanguwuñ koon ba mu juloon jàmmaarloo seen digg ak way takk der yi ñoom ñi nga xam ne ñoo di nappkat yi nag doxantu nañu ba ca commissariat de police ba jébbal seenub njéggal ci ki nga xamante ne moom moo di commissaire ba fa fare moom nag nangu na ko ba noppi ñaawlu yenn ci vidéo yi nga xam ne jotoon nañu ko filmer wane ay policier yuy daw mbir moome nag daal di gàkkal ci ni ma koy waxee nag li nga xam ne moom moo di euh, image up police ñaawlu na ko moom commissaire bi ñu ànd ceeg Mamadou Diop ak Mohamed Thiombane ci reportage. jàppante yu métti yi doxoon ci diggante yenn nappkat yi ak ñi nga xam ne ñooy waa police ñi nga xam ne ñu kat bëgguñu woon quai de bi am ci tefes dem nañu ci commissariat urbain ngir mën a jéggalu ba dundooy ak ñi mu àndal nekkat li nga xam ne moom moo amoon ñoom ñoo ngi koy rëccu. nga xam ne métti na te dikk ko jéggalu ci président de la république premier ministre ministre de l'intérieur ak ministre la pêche ba ci moom mi nga xam ne mooy wàllu préfet ak ñi nga xamee ne ñooy njabootu waa police gépp ñuy ñaawlu lii. Madjibou Leye gannaaw ba nga xam ne nangu na jéggalu ñi nga xam ne ñooy nappkat yi moom nag ñaawlu na bu baax a baax yenn ñi nga xam ne dañuy dem ci média yi di am lenn loo xam ne dañ koy wax ci liggéeyu waa police. lii amoon jéggal nañu ñëpp. ci ci ci ci turu police ci turu président ci turu ministre de ci turu sama directeur général de la police nationale ba léegi Sénégal moom ñi xam duñu wax mais ñi xamul ñooy wax rek am na sax ay ñoo xam ne nee nañu ay spécialiste lañu comme li nekk dakaar li xew dakaar ñu ne noo les éléments policiers yi solde civil moom ñuy wax brigade de recherche ñoo waruñoo waruñoo interpellé dégg naa ci sax benn kii mu ne c'est en violation Euh, de la 5 de du règlement 5 de l'UEMOA c'est faux. ki nga xam ne moom moo jiite it commissariat urbain bu Mbour leneen li nga xam ne ñaawlu na ko mooy yenn vidéo yi nga xam ne ñoo ngi ci réseaux sociaux yi te video yooyu day yàq li nga xam ne mooy deru waa police. situation bi li muy métti yëpp on a suggéré te c'est ça qu'il fallait faire parce que police aussi rôle am mooy gunge état waaye police warta mettre état ci situation boo xam ne état du nekk. du du confortable état day jéggalu wala muy wala muy jaale wala muy wala wala wala wala muy méttitlu wala muy réccu wala wala non. commissaire lay rafetlu bu baax a baax taxawaayu ñi nga xam ne ñooy autorité locales yi ci jàppale gi nga xam ne def nañu ko ba jàmm dellusiwaat ci ñooñu nag ñu gën cee nemmeeku ki nga xam ne mooy Saliou Samb nekk président conseil départemental bu Mbour. ñu wax ci accident ba nga xam ne moom moo amoon ca diwaanu euh, Padalal ba sax euh, ku jigéen ki doon wuyoo ci tuuru ñàng kase ñàkk ci bakkanam ginnaaw euh, ba patrouille bu waa police doon amal seenu pick-up ba nag daal di koy mbëkk maire bu Amady Unaare di Amadou Samba doxantu na ba ca ka nga xam ne moom moo ci génn àddina ngir jébbal lu jëm ci njaal mi leneen la mu àddu moom mi nga xam ne moom mooy maire bu diwaanu Amady Unaare mooy rek daal di wax nit na def kéemtalaay kàttanam ba yoon def liggéeyam ci mbir mi ñu ànd ceeg leeralu nag mi nga xam ne mooy directeuru LONASE demoon yeesal njaalam ci njabootu jàngkase mi nga xam ne moo ñàkk bakkanam ginnaaw patrouille bi gendarmerie doon amal kii di meeru Hamadi Xunaare nag demoon yóbbu njaalam ak masawu famille bi bu baax a baax ci tiis boobu dal seen doom. avec boo xam ne bii xew fii boo xam ne ñëpp metti ba tax. alors boobu maa ngi woon bitim réew mais bi ma ko déggee donc comme ni ma leen ko waxee bi affaire passé man bi ma ñibbisee ma ñëw fii tey justement pour loolu pour un xam ni affaire bi demee de visu parce que fii accident bi def euh, amee dem naa gis naa poto lampe bi et tout ça j'ai rencontré les parents du de la défunte fii ci commune bi léegi léegi nii ñu ngi jógee Padalal parce que fa la xale bi fii la dëkk mais fa la doon fa la doon sëy ñu waxtaan ak mbokk yi ñoo ñëpp comprendre nañu. Amadou Samba Kane nag mi ngi woo collectivité locale yi ñu booloo ak force de l'ordre yi doon benn ngir ñu mën a yombal liggéey bi moom it nee na dina def kéntu lay kàttanam ngir dëgg bi feeñ. l'armée li leen fi indi mooy assurer suñu sécurité surtout damay insister pour ne euh, administration bi dafa war renforcer sax sécurité bi parce que fii un ñu ngi ci zone frontalière. que ñëpp xam nañu problème yi am entre suñu réew yi yu ñu wër Mali yeneen réew yi si si euh, djihadistes yi et tout ça alors donc un de deux fii dafa am industrie extractive dafa am euh, ay mines yu fi yu fi am donc loolu day développement industriel boobu day tax ñeneen dañuy wàllu si ñeneen day ñëw ci dëkk bi ñoo xam ne bokku ci fii Amadou Samba nag dafa mujj écourter voyage am ngir ñëw xool bi la situation bi événement nag mi ngi xew ginnaaw gendarme yi bañ doon amal seen patrouille mi nga ko ñu gërëm ko moom Fatimata Tall mbokk yi yéen itam jaajëfal leen ci topp gi ci première chaine de télé privée bu Sénégal loolee mooy ndax képp xibaar yi gërëm ñi ci jàpp ba mu yemb yeneen xibaar incha allah 19h ak 20h lay doon ci euh, rédaction bu 2STV laata loolu ñu bàyyi leen ak sunu ay programme ci sama kàddu 2STV di wéy di leen ñaana atum naataange jaa ngeen jëf.